Chers téléspectateurs de la 7TV, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Avocat le droit à votre service émission bi nga xam ne moom mooy traiter les cas mais aussi l' waaye nag tey dañuy ñëw ci benn problématique benn problématique boo xam ne Sénégalais ñu ngi koy dund depuis l' accès à l'habitat que dañoo gis ne vraiment lépp lu xam ne état bi mi ngi koy def malgré les efforts yi nga xam ne état ngi koy consentir dans cet aspect donc dañuy gis ne vraiment ba tey le donc ci loolu ñu dalal si ki nga xam ne mooy Mamadou Kassé nekk directeur général de la SICAP SA tey moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom ci problématique bi ni mel maanaam l'accès à l'habitat fii ci Sénégal donc lan mooy les solution lan mooy les causes nan la ñuy def ba gën ko gën ko ñongal tey moom la ñu dalal déjà ñu lay nuyu di la di la dalal. maa ngi euh, lay sant bu baax a baax ci émission bi. Mm-hmm. di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi te am yaakaar ne xëy na tey waxtaan bi dana permettre euh, ñi amul woon lu leen leer ci yenn ci ruq yi nga xamante ne. mooy sunu bànqaas bi ñuy liggéey muy wàllu dëkkuwaay yi xëy na peut-être dana gën a leer ci seen bët. dina gën a leer seen bët looloo tax ñu ñu jël la tey directeur nga nekk directeur de la SICAP SA nekk benn agence bu mag ci wàllum promotion immobilière tey lu ñuy gis mooy ci wàllum accès à l'habitat dañuy gis ne l'État du Sénégal malgré les efforts yi nga xam ne mu ngi koy def donc projet yi bëri na programme yi bëri na mais ba tey dañoo gis ne le manque se lu waral waa xam nga li tax kër war a mën a manqué c'est souvent mën na nekk euh, problème yu bëri yu dajaloo mhm. d'abord euh, mën na nekk ne population bi euh, ni nga xamante ne moom noonu lay yokkoo mhm. xëy na peut-être jéggi na dayoo ba nga xamante ne xëy na lii war a ànd ak loolu muy accès habitat bi ak équipement yi mhm. xëy na peut-être dawul ni mu waree souvent aussi dafay dal dëkk yi nga xamante ne comme senegal la ñu jàpp ne dañoo nekk ci tabax seen euh, koom-koom euh, ngir yokkute. donc euh, nekkuñu ñi nga xamante ne peut-être comme Europe. toll nañ jamono ju nga xamante ne seen koom-koom toll na fi nga xamante ne li ci ëpp ci lu ñuy soxla xëy na peut-être ñoom war nañ ko mën a lijjanti ni mu waree. Mm-hmm. kon ñaar yooyu boo ko boolee xëy na mën naa tax. Euh, politique gu habitat maanaam ci li ngay fexe ba jot ci kër yi pour ñëpp euh, wala pour ñi ëpp euh, wax dëgg yàlla doon loo xamante ne xëy na dana am ay jafe-jafe loolu moo tax président de la république ci xalaatam déjà bi muy tëgg programme am boobu ñuy wax yoonu yokkute am na volet bu bëri boo xamante ne tëggoon na ko ci ci te mu jëmle ko ci ñi nga xamante ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw wala soxla nañu ñu jàppale leen pour que bu ñuy am seen kër gu njëkk. mu war leen a gën a mën a yomb. ba pare nag tëral ko ci kaw euh, li nga xamante ne mooy cosaanu euh, secteur bi. muy maanaam euh, li ci SICAP di joué li ci SNHLM di joué. ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xamante ne ay acteurs lañu. léegi xëy na peut-être 2019 ci la créé benn projet bu ñuy wax projet BID. mooy projet zéro bidonville. zéro bidonville. maanaam euh, xeex lépp lu nga xamante ne mooy dëkkin wu ñaaw ci gox yu kawe yi. alors euh, ci biir projet bi nag mu am ci programme bu ambitieux boo xamante ne dafa war a sotti téeméeri junni logement yu bees ci biir secteur bi. cent mille logements sociaux yi ñuy wax. waaye souvent dañuy taxaw ci mbir moomu te duñu taxaw ci li ko sookee. Mm-hmm. ndax euh, téeméeri junni logement. nga tabax ko ci juróomi at ci dëkk boo xamante ne xëy na ñaari bànqaas yi gën a mag yi daan tabax muy SNHLM ak SICAP boo leen boolee ci seen ngiiru dund muy daanaka juróom-ñaar fukki at euh, ak lu topp pour SICAP ak euh, daanaka juróom euh, benn fukki at ak juróom-ñeent pour HLM. HLM mhm. ñoom ca la ñu liggéey lépp xëy na produit ñu lu toll noonu. Mhm. kon loolu dafay aaje nga changer nga soppi. na ngay doxalee ni nga xamante ne noonu nga tëralee secteur bi na ngay tabaxee na ngay dëkkee na ngay euh, maanaam euh, jëfandikoo suuf si. Mm-hmm. ak ni ngay joxe kër yi. te loolu maanaam ci tubaab moom la ñuy wax réforme. Mm-hmm. donc jàpp naa ne laata ñuy wax mbirum production wu cent mille logements yi. Mm-hmm. dañuy wax d'abord ci conditions yi nga xam ne moo war a mën a permettre ñu changer suñu façon ba mën a produire. li war te foofu nag. le réussite bi nekk d' abord. parce que ñu bëri dañuy tëb rek wax affaire 100000 logement bi mais man damay d' abord wax ci li nga xamante ne mooy condition yi créer ñu war a mën a accélérer maanaam ñu baral. ni nga xamante ne noonu la ñuy tabaxee. ba nit ñi mën a jot ci kër yi ci anam ba mu waree. ba mu waree ci conditions yi ngay wax c'est-à-dire il faut mu am au préalable des yoo xam ne ñoom ñoo mën a ñoom mën a nekk les bases pour ñu mën a réaliser les les le projet de des cent mille logements sociaux. xam nga xam nga secteur bi dafa soxla woon réforme. Mm-hmm. moo tax 2016 président dafa dugal benn loi bu ñu wax loi d' orientation pour l' habitat social. Mm-hmm. ñu voté ko à l'unanimité maanaam député yëpp lëkkaloo vote ko. voté ko euh, suñu dëkk donc am tey loi d' orientation ci wàll boobu noonu te soxla woon nañ ko. Mm-hmm. ñaareel ba moom mooy dafa am ay bànqaas yoo xamante ne moom la war a àndal mu war ko accompagner. parce que tey problème problème bi ñuy rencontrer le plus te nga xamante ne mooy euh, maanaam euh, jàngoro yi sunu dëkk yi euh, mooy tali yi mooy réseau yi mhm. maanaam téléphone bi ndox mi courant bi fan lay jaar bu tawee ndax du am inondation les équipements sociaux mhm. non c'est loolu c'est les VRD c'est les voiries réseaux divers mhm. léegi maintenant équipement yi ci biir lotissement am na yeneen équipement sociaux de base poste de santé ak école ak yooyu ñoom ñooy ànd ak lotissement bi ñëw gunge ko pour que foofa noonu war a mën a am fonctionnalité maanaam boo fa duggee muy dox nga la nga xamante ne moom nga soxla euh, te mu doon la nga xamante ne euh, lu lu lu lu soxla yi léegi la nga mën ko lijjanti yóbbu sa doom école dem jëndi euh, dem dem dem dem dem jëndi ci marché waaw dem dem ca marché ba mhm. xale yi bëgg sport ñu mën a sport nga bëgg doxantu nga am foo doxantoo ak nag boole ci nag maintenant léegi booy dox trottoir yi war a mën a nekk aux normes euh, li war a nekk ci suuf dugg ci suuf fii lu courant yi jaar ku nekk ñu mën laa alimenter mu nga xamante ne léegi dafay doon confort bi nga xamante moom la ñu soxla alors kon loolu dafa tax société bu mel ne safri muy société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine mm-hmm. nga xamante ne ginnaaw loi d'orientation bi lañu ko créer nekkoon na loo xamante ne manqué woon na pour aménagement wu espace yoo xamante ne commodité yépp dafay mën a am pour euh, dëkkin bi mën a doon aussi dëkkin boo xamante ne dëkkin bu sell la donc euh, après euh, FHS également lu fonds pour l'habitat social le fonds pour l'habitat nga xamante ne tey moom mooy collecter taxe bi boobu ñuy wax taxe sur le ciment euh, di ko utiliser ci biir système bi loo xamante ne dana permettre Massamba ak ma Mademba mi nga xamante ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw mhm. te ñu bëgg ci kër yi te war cee am te war cee mën a am sax laay wax euh, ñu xam naka lañ leen fexe ba jàppale leen parce que ñoom ñi ngi góorgóorlu parce que xëy na kii taximan la kii menuisier la mais revenu am nekkul revenu yu régulier boo xamante ne nii banque ba war na cee mën a sukkandiku pour lebal ko lebal ko mhm. moom mu mën leen a jàppale pour ñu loolu mën a jàppandi pour ñu mën leen a bancariser comme ni ñu koy waxee euh, entre guillemets kon yooyu ay bancage yu bees la yoo xamante ne ci réforme bi la ñëwee mhm. mais Euh, am na yeneen parce que gis nga ne que dernièrement on a eu aussi la réforme du code de l'urbanisme et du code de la construction. code de la ci wàllu planification ci wàllu ni ñuy tabaxee gis nga bu baax. Mhm. ne que am na ay problèmes ay immeubles yu effondré wu et loolu yëpp lu ñu waroon soppi la. d'abord pour que effectivement li ñuy wax amélioration ci écosystème de la construction parce que tey. Mhm. ndax dañoo war a tabax nañ daan tabaxee. mooy dem. Euh, def li ñuy wax naan ay daaj ay damay daaj ay briques xawma ma euh, nga nga nga ñëw xam nga daaj say briques teg bàyyi mu bàyyi mu wow boo paree nga nekk fii dugalee ñuy wax brique à brique dugalante ay ay ay briques parpaing yooyu noo xam nga loolu euh, xëy na peut-être yegg nañ ci jamono bu nga xamante ne ñii xëy na mën na nekk béton projeté boo xamante ne euh, c'est du béton prêt à l'emploi nga ñëw projeté ko ci biir euh, def ko ñii di def ay panneau sandwich ñii loolu yëpp pour mu gaaw te pour mu dëgër toujours pour mu yemb. Mhm. Euh, loolu moo tax il faut que ñu def réforme yi. Mhm. nit ñi d'accord ci yenn procédé yi. Mhm. pour ñu mën a changer ni nga xamante ne noonu la taxawee. moom la taxawee mais tey nii ba nga waxee ci li nga xam ne mooy les conditions d' abord pense que conditions yi bëri na je pense que yu bëri li ngi koy commencé remplir comme ni nga ko wax donc am na ay institutions yu bees yoo xam ne jël nañ ko après loi d' bi donc am na yu bëri yoo xam ne def nañ ko maintenant tey jii nii fan lañ ci toll exactement ci les projets bi nga xam Euh, travaux yi euh, de réflexion yi 2017. Mhm. président consolidé ko 2018 présenté ko dans son programme euh, liggéey ngir ëllëg. Mhm. ñu élire ko ñu bëgg a démarrer programme bi bul ko fàtte dañoo jóg rek daanaka Covid ñëw. Covid nag dafa freiné allure lu bëri. élan bi c'est vrai surtout élan wu 100 000 logements yi. Mhm. parce que dañoo désœuvré woon carrément au niveau du du système. donc il a fallu maintenant que après ñu réarmer wu waat pour mën a dugg dans la production tey par exemple Sika ba ngi produire HLM ba ngi produire am na ay privé yuy produire am na ay coopératives yuy produire ba tax na xëy na da na ñu consolider loolu yëpp pour que le loo de premières clés ñu mën koo joxe. ñu mën koo joxe donc actuellement ñu ngi ci phase boo xam ne mën nañ jàpp d'ici peu donc dina am des des retombées vraiment positives yoo xam ne commencé na sax ah parce que mm-hmm. am na ñoo xamante ne daanaka euh, seeni caabi noppi na am na ñoo xamante ne seen caabi mi ngi waaj a noppi ñun par exemple premier lot bi nga xamante ne euh, signé woon nañ ko ci contrat d'objectif et de moyen bi nga xamante ne moom la ñu ak le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mm-hmm. am naa yaakaar ne euh, fii ak ñaari weer war nañoo mën a joxe premier lot bi ngir mu mën a euh, dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom dañuy dégg aussi que les gens ñi nga xam ne mooy les potentiels bénéficiaires dañ naan vraiment c'est un peu cher cest à bu ñu nee logement sociaux donc waruñu dem ci yenn yenn yenn fourchette de de prix yi lan ngay tontu ci lu nu mel. waa xam nga mbirum euh, cher. Euh, ak cherul loolu moom poste boo ko laaj rek mu ne la. mbir mi bu ñu ko wàññi woon mu gën a jàppandal waaye xam nga loyer dafa di structuration boo xamante ne nii dafa am lu muy jël en compte ndax lu nekk danga nga koy jox valeur suuf si. dafa am valeur boppam. boo paree intrants yi ngay liggéeyee muy ciment fer ko xam nga ñun maîtriser wuñu marché bi xam nga jamono jii nee nañu ciment dafa cher. dëgg la ciment jóge na ci benn prix yéeg ci benn prix. waaw xam nga ciment ba ngay doon jëndee euh, ci tele prix bu fekkee ni yokku na ba dem double. Mhm. boo ko jëndee bu bu génnee nga calculer waat sa structure de prix kër ga mënul jar la mu daan njëg ba mu daan jar ba ciment di jar euh, euh, xaaj ba. fer bi. Mhm. ci la bokk. boo paree nga jël ndox mi. Mhm. nga jël suuf si. mi nga xamante ne moom ngay jaxase boo noppee. nga jël les éléments de seconde œuvre mooy maanaam bu gros œuvre bi pare la cay taftalu euh, muy sanitaire yi robinet yi euh, boo noppee filouterie euh, filouterie bi filouterie bi nga xamante ne moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay def liggéeyee électricité bi mm-hmm. ak lépp li nga xamante ne day ñëw ci ginnaaw bâtiment bi mm-hmm. caro carrelage bi waaw loolu yëpp bu fekkee ne loolu tamit maîtriser wuñu ko parce que euh, du ñun ñooy déterminer prix yi faaw ci la mu ñuy dikkee rek loolu la ñuy répercuter ci kaw prix bi. Mhm. donc calcul prix wu kër dafa am logique. après te logique boobu noonu. Mhm. dafay dafay épouser li nga xamante ne moom mooy valeur wu lépp li nga xamante ne dafay entrer en compte ci biir mbir mi. moo tax nag état du Sénégal di ko subventionné. parce que tey euh, boo gisee logement ci cent mille logement bi. li ci ëpp parti bi ci ëpp état du Sénégal moo koy supporté ci ay procédés yoo xamante ne nii euh, taxe boobu ñuy collecté dana permettre ñu accompagner ñenn ñi. Mhm. ñu bancariser leen ñii ñii ñii du ñu jël benn taux d'intérêt ci ñoom ñii danañ leen subventionnel. Mhm. ci ñi nga xamante ne soxla nañu ko loolu mooy social. loolu mooy loolu mooy social mais yaa ngi koy yaa ngi koy wax sànq directeur c'est-à-dire boo xoolee tissu social fii ci fii ci Sénégal nii ni nga xam ne moom la moom la tëddee donc sénégalais du ñëpp ñoo am ay liggéey yoo xam ne c'est régulier ak yoo xam ne ay liggéey yu stable la c'est-à-dire du ñu am vraiment la possibilité d'aller vers les banques parce que encore il faut les banques accompagner la pour nga mën a am li nga xam ne mooy les logements sociaux donc dañuy dégg ne aussi tamit la plupart nga xam ne ñoom ñoo war a destiner également sur les logements sociaux maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy les personnes nécessitées est-ce que ñoom finalement dinañ jot ci pour cent yi logements mhm. mais 50 pour cent aussi mhm. dafay dem ci yeneen sénégalais parce que. Mhm. Euh, sénégalais yi aussi bëri nañ mais yemuñu. Ah, ñoom ñëpp ay sénégalais te ñoo bokk dayo li nga xamante mooy sa àq. ak sa yelleef mooy ak ak yelleefu keneen. keneen c'est vrai. Mm-hmm. aujourd'hui le sénégalais bi ne xëy na peut-être euh, amul lu dul jeex. Mm-hmm. waaye am na lu jënd kër. liggéey na ba matal ko denc ko ci poosam te yaakaar ne war naa mën a jënd kër kooku ci sénégalais bi ñuy war a accompagner ci la bokk. parce que liggéey na. Mm-hmm. jëriñ na réew mi bëgg na kër war nañ ko ci mën jàppale. donc kooku. mën nga jàpp ne ci beneen xaaj bi la bokk sénégalais bi nekk diaspora ñaata yoon lañ leen sonal ñuy liggéey di son man nekkoon naa fa xam naa conditions yi nit ñi di dunde am na ñoo xamante ne réussir nañu yónnee nañ seen xaalis jox nañ ko seen benn frère seen benn cousin wala seen benn mbokk boo xamante ne tabaxal ma sama kër bu ñu ñëwee ngunu ginaar sax duñ ko fi fekk mu nekk ay millions yoo xamante ne sa ay mbokk bopp mhm. ñoo la ko truandé doo xam foo koy waxee. c'est une réalité. bëri na. Mhm. c'était une réalité à prendre en compte moo tax tamit am na benn pàcc boo xamante ne ñoom lañ ko jagleel. Mhm. mais ci ñooñu am na ñi nga xamante ne soxla wuñu nga di leen accompagner. am na ñu liggéey ils sont bancarisés ils sont réguliers ba pare bëgg nañu kër. Mhm. te mën nañ ko jënd. ñooñu tamit client potentiel la foog nga jël leen en compte parce que ay sénégalais lañu. léegi nag xaaj beneen bi yëpp mooy ñi nga xamante ne ñoo ngi daan seen doole. mais tey ñu la wax weer bi su dewee ñaata la ñuy am ci marge ak ñaata la ñuy def ci chiffre d'affaires ñooñu nag ñoo mat a xool naka ngay def ba nga xamante ne ni da nga dugal ci biir système bi mm-hmm. euh, ñoom it ñu mën a leb ne ñëpp jënd na ñëpp. Mm. fay régulièrement na ñëpp. fay régulièrement ñëpp voilà voilà voilà mm-hmm. comment ngay comprendre logique de construction bi nga xamante dana mën a laal segment yëpp parce que ñëpp ay sénégalais. ñëpp ay sénégalais je nga benn précision de taille parce que ñi dañuy foog ne logements sociaux yi donc 100000 yëpp ay ay logements sociaux alors que. dafa am c'est mm-hmm. mais 50 la jëm. Mm-hmm. am na ci benn 30 pour cent boo xamante nii 20 pour tout segment. tout tout tout segment. Hmm. dinaa ñëwaat un peu ci ci benn aspect directeur koy wax tabax dafa laaj ay coûts. donc tey jii boo nga jënd fer di nga jënd di nga jënd di nga fay aussi le personnel bi nga xam ne moo koy moo koy liggéey est-ce que ce serait plus que tey bu fekkee ne da ngaa bëgg économiser pour mën a jaay ci njëg bu bu yomb hmm. da ngay ingénieur conseil bi da nga naan ah ingénieur daal ingénieur conseil bi moom li ma koy fay hmm. day bëri xaaral ma génne ko ci ma génne ko ci coût yi. donc y a des ah, après nga génne architecte bi. Mm-hmm. génne ña nga xamante ne ñoo war a liggéey pour batiment bi doon lu fiable. ñu pare jox la benn kër 10 millions nga toog nga nga nga nga nga toog 10 ans lépp xaar. waaw immeuble ba daanu. Mm-hmm. mais bu fekkee nag éventuellement spécialistes yi nga xamante ne ñoo la war a defal les bons calculs defal les bonnes études de structure. Mm-hmm. accompagner la ci études yoo xamante ne dana mën a durable. ba pare mu fiable. ñu surveiller la chantier bi ba nga xamante ne la ñu xamante ne ñoom loolu la ñu digle loolu la euh, main d'œuvre bi di liggéey wala entreprise bi di ko liggéey loolu dafa am coût te coût boobu aussi nag bu fekkee ne yaa ko fay mhm. euh, leketu kese ndaxu li bay donc yow boo demee ne promoteur immobilier nga mhm. ah mën ngaa dellu buum ca booy booy ba mooy maanaam nga liggéey te doo def benn bénéfice waaye perte moom nit xalaatu koo liggéey di ko def ala kulli haal même bu fekkee l'état donc da liggéey pour am un peu un de ah, profit dinaa ñëwaat un peu ci ci ci ci loolu noonu c'est-à-dire coût yi nga xam da ngeen koy da ngeen koy génne cest bu fekkee da ngeen di di da ngeen di tabax est-ce que ce serait bàyyi terrain yi noonu ne Sénégalais yi ñëw leen ngeen jël ku mën nga tabaxal sa bopp est-ce que loolu gënul simple donc gënul sax accessible par rapport ak boo xoolee tissu social sénégalais bi. waaw loolu moom loolu moom mooy rek ubbil buntu bu ubbeeku rek comme ni ñu naan <laughs> enfoncer une porte ouverte. Euh, xam nga am na loo xamante ne duñ ko jàngal Sénégalais yi parce que dañ ko mën ba noppi. Mm-hmm. le système coopératif dafa di loo xamante ne réalité la biir Sénégal. Mm-hmm. autoconstruction réalité la biir Sénégal mm-hmm. jënd sa terrain tabax. réalité réalité la biir Sénégal. kon fi ñu toll nii li ñu def rek mooy parfaire ko accompagner pour mu mën a rafet. parce que tey souvent euh, am na tey boo xoolee Parcelles Assainies tey dootul quartier commune la. waaw euh, c'est c'est parti de programme de la Banque mondiale après HLM jël ko euh, commercialiser ko amul presque amul benn cité boo xamante ne cité bii cité HLM daanaka ci biir parcelle. Parcelles Assainies la parcelle lañ lay jaay nga tabax. nga tabax te regarde maintenant. waaw mais xëy na xam nga dem na ba nekk dëkk. ba nekk commune. ba ñuy élire seen maire bopp. waaw ça veut que donc fi viable na comme on dit. Mm-hmm. mais xam nga la mooy problème mooy mënoon naa gën parce que bu fekkoon ne am na cahier de charge. boo xamante ne nii mooy accompagner euh, couleuru façade yi. Mm-hmm. mooy accompagner un certain nombre de donne technique xëy na euh, tey dana doon loo xamante ne dana gën a mucc ayib. foofu nag lañu war a euh, gisee parce que sénégalais constructeur la de nature. moom même boo koy jaay kër goo xamante ne yaa ko tabax moom mi ngi réfléchir ci d' abord nan la koy transformer. kon kooku normalement jaay ko terrain. ñu harmoniser. ba li nga moom nga def ko waaye li ngeen bokk ngeen bokkee ko ci anam boo xamante ne nii dana mën a améliorer cadre de vie bi. loolu am na solo loolu am na solo directeur nit ñi dañuy bëgg dëkk dëkk Dakar mais actuellement boo xoolee logique bi ni mu mel c'est-à-dire les gens dañoo war a xalaat maintenant sortir sortir de Dakar est-ce que yéen tam yéen a ngi ci yéen a ngi ci logique boobu c'est-à-dire proposer des des terrains des logements sociaux fu mel ni Touba fu mel ni Kaolack fu mel ni Mbour pour que les gens commencent vraiment à savoir que vraiment logique bi actuellement c'est sortir de Dakar pour bien vraiment s'abriter. waaw loolu dafa dul sax mën a ñàkk nag. Mm-hmm. Euh, jamono moo ni tëddee. jamono moo euh, sànq euh, maa ngi la koy wax man la. Mhm. jamono ba nga xamante ne Ndakaar service d'hygiène la yem. et que beneen buntam boulevard de l'Arsenal la yem. Mhm. beneen buntam boulevard de la République. beneen buntam Camp Lat Dior. booba looloo doon Ndakaar. looloo nekkoon Ndakaar. booba Médina sori na. la. waxuma sax ay waxu Point E wala Fann ok. Guédiawaye Pikine kenn xalaatu. waaw Pikine kenn xalaatu ko. léegi nga dem ba nga xamante ne dañuy wax conurbation ñuy wax triangle Dakar mburu Thiès mooy maanaam Mbour a ngi dab si dab si ñëw Dakar euh, Thiès a ngi ñëw dab si ñëw dakaar zone d'influence bi daanaka ci triangle boobu yëpp la mooy daanaka daanaka ñaari dëkk yi gën a rëy wala bon Thiès mooy ñetteelu dëkk après Touba je pense bi gën a rëy Mbour topp ci nga boole ñett yooyu noonu ci benn say xam nga kon loolu la ñuy wax ébullition urbaine am na foofu noonu léegi kon euh, génn fa mbaa am noo fa tabaxee am na solo ñu xool ko moo taxoon jam ñaajo mi nga xamante ne moo doon euh, maanaam xolu triangle boobu noonu mooy maanaam iso bari isobaricentre mm-hmm. triangle boobu noonu foofu moo tax mu stratégie goon pour que ñu def fa dara wala ñu envisager fa dara mm-hmm. parce que loolu c'était naturellement sax la ñu waroon xool naka la war a mën a parce que les gens on peut on peut critiquer jam ñaajo naan dafa jege ñi naan vraiment lii ak lii ak lii mais boo xoolee logique bi ak vision bi nga wax ni mais loolu zone de connexion wu ñetti points yi la woon alors nga xool boo ko maîtriser wul dafay nekk loo xamante ne après finalement désordre lay indi kon nga maîtriser xool bi day tax ëllëgi si biir crise cardiaque du am bu fekkoon ne ci nit ko koy xayma du am asphyxie waaw du am asphyxie <laughs> mhm. donc naturellement flux yi nga xamante ne dafa war a ñëw mu am lu ko téye flux yi jógee euh, kii mu am lu ko téye mm-hmm. flux yi nga xamante ne aussi mi ngi jógee Dakar di ñëw mu am lu ko téye kon comme sax mu am équilibre maintenant nag pendant ce temps là nga am yeneen métropole d'équilibre yoo xamante ne développé nañ ko ci plan national d'aménagement et de développement durable du territoire muy PNADT bi mm-hmm. euh, Tamba nekk métropole d'équilibre Louga ak yeneen zone yoo xamante ne fu ci nekk dangay xool aire d'influence bi bi nekk autour lan moo fa am mm-hmm. infrastructure yu bees yi ñu fa def pour fixer leen naka la fa tëddee euh, comme ça tamit mu am une vie boo xamante ne dana permettre mu développer gox yi ak goxaat yi nekk autour xam nga tey université bi ñu def au Sine Saloum am na lu mu indi ci Kaffrine donc indi ko dans le Sine Saloum indi ko dans le Ndoukoumane euh, tey boo demee université du Sénégal oriental à Tambacounda dana am lu mu liggéey ci Bakel ba dans le ñaani ba dans le Wuli ak la Gadiaga euh, dem ba ci la la la la zone de Kédougou tey université Assane Seck am na lu mu liggéey loo xamante ne liggéey na ko ci wàllu fixer nit ñi entre Ziguinchor et ses alentours. j'étais à l'université Alioune Diop de Bambey mais vraiment boo gisee impact bi mu am ci zone boobu impact bi léegi maintenant bu ñu ci boolee di def ay hôpitaux di def ay routes di def ay autoroutes. Mhm. Euh, programme agricole yi ñëw et tout ça. donc mën naa jàpp ne loolu mooy euh, l'émergence en marche mais dans sa vision territoriale dans sa vision wow. ci loolu la ñu war a jëm sànq yaa ngi koy wax dañoo nekk ci benn logique boo xam ne on parle de cent loo xam ne SICAP SNHLM nga xam ne ñoom ñoo les sociétés nationales phares yi nga xam ne ñoo fi nekk mosuñu produire lu nu mel anu place privé bi parce que actuellement on a des privés yoo xam ne vraiment ay géants lañ ci wàllu immobilier ñoom tamit fan la ñu fan la ñu bokk ci collaboration bi fan la ñu toll ci yéen ak ñoom entre la collaboration pour vraiment mu gën a mën a atteindre ses ses ses objectifs. non xam nga privé partie intégrante la ci programme bi. Mhm. parce que tey neewuñu ne cent mille logements yi. Mhm. dañ si am wàll mais privé yi aussi le privé national et le privé international dañ si am wàll parce que noonu la offre bi ni mu tëddee pour pouvoir nga satisfaire ko il faut nga jël ñi nga xamante ne ñëpp ñooy produire nga xool seen capacité nga réunir ko conjuguer seen ay effort pour ñoom ñu mën a répondre à la demande parce que demande bi non seulement dafa yaatu mhm. mais bokkul demande bi bokkul parce que comme ni ma la koy waxee mhm. sa demande yow ak demande u Masamba ak demande u Mademba ñi nga xamante ne ñëpp ay sénégalais lañu. Mhm. bokkuñu parce que la ñuy indi teg ko sur la yemul. Mhm. la ñu soxla bokkul fa ñu bëgg a dëkk bokkul la ñu am pour def ci bokkul. te loolu nag du SICAP kese wala HLM kese foo ko mën a lijjanti. donc moo tax au delà des contrats de budget et de moyens yi nga xamante ne SICAP ak HLM signé nañ ko. Mhm. am na ay convention privée au nombre quasiment d'une trentaine yoo xamante ne ay privé ñoo koy dérouler dans le cadre des cent mille logements ñii fii lañ nekk ñii suñu ay naataango lañ dem na sax ñu jógee ba Mali wala ñu jógee ba Dubaï wala feneen ak feneen pour ñoom tamit apporter seen pierre à l'édifice indi aussi seen xam-xam ak li nga xamante ne mooy seen xarala ci mbir mi directeur du ma jeexal ci laajee ci benn question parce que sénégalais ñu ñuy seetaan tey jii ku bëgg bénéficier sur le programme nan ngay def c'est-à-dire simple le simple ñoo ñu nii ak nii ak nii voilà les étapes yoo xam ne moom ngay moom ngay topp pour bénéficier des non xam nga 100000 logements dafa am équipe de gestion mhm. donc 100000 dañ ko rattaché ci ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique foofu noonu dafa am direction général bu tudd la direction générale de la construction et de l'habitat te sunu frère euh, ingénieur polytechnicien Amadou Thiam jiite ko mhm. moom ci boppam ak ay équipe ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy recenser loolu. Euh, boole ànd ak FHS ñu am un unique. boo xamante ne fii la nekk cité Kër Góor gi. au niveau du siège du fonds pour l'habitat social. donc guichet unique boobu noonu dana jël aspect yépp. donc da nga mën a déposer danañu mën a jël en compte say mbir danañu mën a xool ndax yow fi HLM di di di produit lañ lay dugal. wala fi H SICAP di produire lañ lay dugal wala ci tel tel privé ci ban programme ngay dugg. Mhm. donc foofu mooy guichet unique bi. foofu nga mën a dem cité te Kër Góor gi pour mën a bokk ci li nga xam ne mooy programme bi bëggoon nañu waxtaan ci spéculation bi mais comme ni nga ma ko waxee nga ma loolu beneen thème la boo xam ne war nañ ci mën a waxtaan donc ulté ultérieurement mais dañoo nekk aussi ci Sénégal vraiment te contexte actuellement c'est les inondations te ñu ngi wax ci li nga xam ne mooy. accès à l'habitat c'est une problématique la mais tamit inondation fii au Sénégal problème la ak bidonville yi nga xam ne ñu ngi leen ñu ngi leen gis nan la ñuy def aussi ba régler cette situation parce que depuis depuis lors chaque année on prend des milliards def ko ci li nga xam mooy inondation mais ça ne change rien est du architecture bi vraiment zone yi ni mu mel koñ yi ni mu mel donc loolu dañu war a régler bu ñu bëggee régler li nga xam mooy l'inondation non améliorer d'accord waaw ouais. euh, ça ne change rien je ne suis pas <laughs> waaw ah, parce que tey. <laughs> waaw damay ah, wax xam nga man parce que. Mhm. en 2009 j'étais le directeur technique du fonds de solidarité nationale. Mhm. donc euh, xam naa lu bëri ci fi inondation tolloon. Mhm. ak fi mu toll euh, tey jii nii euh, en 2023. nga xamante ne mën nañ ne c'est quatorze ans après. Euh, oui il encore des choses à faire il y aura toujours des choses à faire. parce que la nature moom maanaam ni muy jëlee yëfam. Euh, ëpp na euh, mais euh, tey li ci waroon defu yëpp ci lu nguur war a dugal loxoom. am naa yaakaar ne lu ci bëri def nañ ko. léegi nag dafa am benn loo xamante ne xolli góom boo xamante ne kenn ñemewu ko nag. parce que lu jafe la xam nga nga ñëw buñ la nee tey benn commune entière mi ngi dëkk ci yoonu ndox. et que bala ngay trouver solution bi foog fi mu ne nga génn leen foofu yëpp xam nga loolu problème la. problème la mhm. parce que boo boo yëngalee waa dëkk ba yëngu. ah te faw aussi pour ñu mën a trouver solution boobu noonu faaw faaw loolu am léegi ñun spécialiste lañ d'accord mais. delloo naa la solution. par exemple pour nga mën a <laughs> mesurer complexité wu mbir mi. waaw c'est un deuxièmement li nga xamante ne c'est le béaba SICAP mii day. Mhm. foo dem. am na euh, assainissement mm-hmm. mais regard yi nga xamante ne fa la ñuy jaar nit ñi dañu ñëw grille avaloir yi nga xamante ne mooy permettre salte bi su ndox mi ñëw salte bi du dugg mais grille boobu la yow sa yow sa moroomu sénégalais mooy ñëw sàcc ko dem dem seeyal ko pour dem ko def ko faire pour wuti xaalis. problème de citoyenneté mooy ñëwaat foofu waaw d'accord problème di dugg. Mm-hmm. man dama ne la plusieurs fois grille avaloir bi leen sama buntu kër defar naa ko tegaat ko foofu noonu mais ñu sàccaat ko. bu ko defee saleté yi dañuy ñëw dugg boucher foofu léegi bu ndox mi jàllul ndox mi daal di taa foofu léegi feneen fi dootul évacuer nga indi problème boo xamante ne ci rek benn grille boo xamante ne xëy na boo ko boo ko boo ko sottee sa intérêt bopp la di nga ci gagné sa benn 10 000 francs nga yàq lu tolloog mille wala 200000 wala 300000 yàqal 500 euh, personnes yoo xamante ne nii yow rek ci sa ci sa nafsu bopp ak sa bëgg-bëggu bopp loolu nan lañ koy lijjantee waaw beneen problème bi moom mooy euh, mbirum toujours euh, inondation yi dafa am ay ay déeg yoo xamante ne déeg yooyu ñooy déggu cosaanu réew mi ak dëkk bi dégg bu ñu naan wuy dégg bu ñu naan waruwaay dégg bu ñu naan mbëbës dégg bu ñu naan ret ba yooyu yëpp normalement daanaka yu ci bëri sëkk nañ ko ba tabax fa toog ah mooy les zones non aedificantes yi. oui logiquement donc euh, pendant les périodes sèches mooy jamono yi nga xamante ne euh, amoon nañ fi problème mu nawet. loolu mhm. woon taw donc dem nañ ba dégg yooyu ñu yaakaar ne euh, suuf su waw la. ay ay ay boo demee ginnaaw Tivaouane Peulh tiir kàmb. Mhm. foofu noonu daanaka commencé nañ ko tabax. Mhm. waxuma la nag léegi moom euh, filaawo yeeg leneen ak leneen. leneen ak leneen Euh, loolu yëpp yaakaar naa interrogation la boo xamante ne dañu war a toog réfléchir ci parce que am na ay problème urbanisme mm-hmm. am na ay problème environnement am na ay problème cadre de vie surtout loolu mm-hmm. euh, ak ay problème avenir yoo xamante ne ci kaw planification urbaine rek lañ ko mën teg mm-hmm. donc c'est une réflexion globale parce que inondation conséquence la euh, conséquence de situation de négligence wala catastrophe naturelle mais fii moom yaakaar naa ne li ci ëpp dañoo seetaan ba nit ñi toog ci ay ñetti mbaar njaago baar euh, tali jàllo euh, Medina Marène euh, Daaru Salaam ba ba yëmbal Kër Masaar Waxinaan Gunaas ba zone boobu yëpp ñu defee ko noo xamante ne jéggi na dayoo. nuñ ko mën a nuñ ko mën a jàppee. négligence de la part de l' état wala parce que bu ñu jëlee ba déclarer des ordres non aedificandi c' est à dire susceptible yoo xam ne kenn mënu see kenn waru see dëkk ñu xoolee ba nit ñi élire fa domicile tabax fa des quartiers anarchiquement donc loolu lan lañ ko mën a lan lañ ko mën a jàppee. directeur waaw xam nga yenn saa yi dañ naan lu yàgg dëgg la. Mhm. mais lu yàgg mën naa bañ a doon dëgg. wax dëgg la parce que dafa yàgg dëgg mhm. lu yàgg mën naa nuru dëgg. loolu laay wax man. Mhm. mais mën naa bañ a doon dëgg. dëgg la parce que au fond comme ni ma la ko waxee. on a vécu des période de sécheresse. parce que boobu alternance su saison yi daan na permettre nit ñi dañuy nawetaan fii nooraan fële. Mhm. noonu moo doon suñu suñu nit ñi dañuy dem bu ñu nawetaani jee bu noor jotee ñu ñëw. liggéey tuuti delluwaat dëkk ba. mais boo daan dellu dëkk ba te tawul dangay ngay toog fii. donc exode rural maanaam nit ñi di ñëw buñ ñëwee aussi am fu ñu war a dëkk. fi ñu dëkk aussi gêné wuñ kenn parce que espace baa ngi fi boobu xool ñu ci suba. Mhm. nit ñi di sëkk di dëkk di sëkk di dëkk di sëkk di dëkk ba mu doon ay dëkk yu ëpp fi nit ñi dëkk. te mu viable. donc loolu nag léegi maintenant il faut interroger notre histoire. Mhm. mais il faut que mu doon problème boo xamante ne duñu ko négliger dañu koy jël à bras le corps certes nag le plan décennal de lutte contre les inondations def na ci lu bëre. Mhm. ci cadre projet. bi nga xamante ne ADM moo ko doon lijjanti. xam naa ci dara d' abord c' était 22 millions d' euros yoo xamante ne investir nañ ko ci ay infrastructures yoo xamante ne dafa fekk si woon yi jaxaay defaroon ak yeneen ak yeneen. ONAS mi ngi def. li mu mën mhm. euh, état dans le cadre de des plans directeurs d' assainissement mi ngi def li mu mën. Mhm. dans sa stratégie nationale d' assainissement waaye nag wax dëgg yàlla dafa doon loo xamante ne ni yenn saa yi day du jéggi dayo da koy ëpp. vraiment le mal est mm. très profond donc pour ko ça va pas être ñu ngi lay jaajëfal directeur di la remercier temps bi ñu impartiroon jeex na donc jox la kàddu gi nga def sa dernier moo ñu doog clôturer. waaw en tout cas di rafetlu d'abord euh, cadre émission bi di leen féliciter parce mm-hmm. que baax na aussi de temps en temps ci domaine yi. Mm-hmm. bu ci nekk rek nga woo ñi nga xamante ne am nga yaakaar ne parce que ñun moom ay ndongo daara lañ rek. dëgg la mm-hmm. yaakaar ne seen xam-xam màcc na ci dara man moom xaw ma dara damay damay tappale rek. Euh, wante wax dëgg yàlla ñu joxe ci aussi suñu xalaat. surtout yaakaar naa ne tey euh, ci wàllu urbanisme du ma ne maa ci mag du ma ne maa ci mën waaye nag euh, toll naa ci foo xamante ne tey ci ñi nekk en activité retraité wu ñu bëriwuma ci ay mag. dëgg la waaw ndax nag loolu la yàlla tudd loolu la mm. yàlla dogal may profité di. di wax ne waroon nañu gën di jël xalaatu sunu mag yooyu nga xamante ne ñi ngi fii ñoom am euh, Amadou Diop euh, bu Gérald mhm. ma koy nuyu au passage ñoom abu gay Seck mhm. euh, ñoom Ale Badara Si nga xamante ne tey xëy na peut-être ñun ñoo nekk ñi nga xamante ne nii xëy na ñoo gën a ràññeeku ci urbanistes yi aménagistes yi. dig ma dig ma mettre en rapport ak ñoom incha allah. ak ñoom Mamadou Djigo va ñëpp nekk nit ñoo xamante ne tey jii nii xëy na peut-être suñu leen boole woon dans mhm. une seule et même réflexion. am na yaakaar ne Sénégal dana ci mën a xel yi ak ñoom suñu doyen Mansour Tall. Euh, ak suñu doyen Oumar Cissé. xam nga ñoo ñëpp nekk nañ ñu nga xamante ne tey jii nii am naa yaakaar ne c'est un pool assez fort. boo xamante ne lu ko Sénégal mën a dénk ci wàll boobu noonu. war nañ ko mën a dékku pour euh, ñu mën a am xëy na peut-être ëllëg boo xamante ne. ci sunu ay euh, gox yu kawe. danañ ci mën a gën a gis suñu bopp. danañ ci mën a gën a gis suñu bopp merci beaucoup directeur ñu ngi lay jaajëfal di la remercier aussi si invitation bi comme ni ngeen ko gisee tey on était avec Mamadou Kassé directeur général de la SICAP SPA doon waxtaan ak moom ci li xam mooy l' accès à l' habitat donc waxtaan ñoom ci aspect yu bëri ñëwaat nañu aussi sur les inondations mais tuuti rek lañ ci ñëw bëggoon nañu vraiment développer la réflexion xool directeur lan la ci lan la ci xalaat donc ñu leen di leen jaajëfal bu baax remercier équipe technique bi nga xam Maodo Ndak Kébé ak Souley si à la réalisation Khady mu nekk ci montage bi ñu ngi leen jox dig daje incha allah semaine prochaine encore même heure même chaîne merci beaucoup